daal di wari si jàmm ak salaam di ñaanal ñi nga xamante ni ay way jiitu lañ ay way dawlu lañ sunu borom xare leen arjana euh, woyofal li nga xamante defal leen ngërëmam ak yërmandeem mu nekk loo xamante ni nag euh, lu am solo la euh, di ñaanal kilifa diine yi ci réew mi yëpp di ñaanal sénégalais yëpp yi nekk si biir réew mi ak si bitim réew di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir sunu borom yàggal ko fi wéral ko di ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour di ñaanal kilifa diine yëpp yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réew mi sunu borom defal leen jàmm bàyyi leen ndax ñoom euh, seen présence euh, présence la boo xam dafay rassurer li nga xam moom mooy sénégalais ak sénégalaises yi. Pape su ci langue bi nit ñi adhésion bi bari lan lebal sénégalais yi. sénégalais yi moom mënu ma leen a fay. mënuma leen a fay maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax euh, sunu yéene rek la ñu am te yéene yàgg naa dugal borom yéene boobu nag moom moo ñu dugal ci lii fa ñu nekkoon yéene moo ñu fa bàyyi woon fii ñu nekk te yéene moo ñu ci dugal yéene nag ak itte. dañoo xamul soxla boo xamante ni ci kaw su xaj na ci loolu moo tax ñun li ñuy ñaan sénégalais yi ak sénégalaises yëpp mooy ñu gën a am itte ci dimbalante ñu gën a am itte ci bennoo ndax ba ci Cheikh Ahmad Bamba contrat moral bi nga xam moom la amoon ak yonent bi salaatu wasalaam bi mu ko feeñoo loolu la loolu la waxanteeg moom rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat himma boobu moom mooy volonté volonté nag ci lu mu am volonté politique sax la ñuy wax volonté ci lu mu am loola day tawféex moom moo ci am donc bu ñu àndee jàppoo jàppante jàppalante ci dëgg sunu borom dinañu defal loo xamante ni loolu moo kawe sunu jot donc je pense que ne loolu sénégalais yi daal wax dëgg yàlla man cant laa leen ameel ak ngërëm cant bu baax ak ngërëm bu baax di leen ñaan tamit ñu gungee ñu ba li ñu bëgg ñu am ko suñu ko amee it ñu ñaanal ñu ba ñu delloo ko pour euh, l'intérêt exclusif des sénégalais incha allah. waaw sa gis-gis ak sa taxawaay ci réew mi ak vision bi lan la fan nga jëm fan nga bëgg a réew mi ci li ngay laaj. nga réew mi moom soo ko bëggee. am ci yene ndono la ndax da nga ñëw ci réew moo xamante da nga fay fekk ñoo xam ay jàmbaar la ñu woon euh, imaam wax na ko léegi tudd Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, ci itte joo xamante ni amoon na ngi réew mi sunu borom def fi taw feex keroog ba mu liggéeyee lay yonente bi salaatu wasalaam liggéey bu rëy boobu ak sunu borom si Gabon bi muy ñibbisi ba ñibbisi jotee ijaxal rujoox yi ilaa xaw mii la wax saxan detana wal tak fi naa yow ma jam xil xalqi niiraana mooy li nga xamante ne amee naa ko ci tukki bi dama lay maa ngi ñaan ak dem bokk ko ak ñi nga xamante ni mooy suma askan ñun nag sunu astuut ci xam-xam sunu temps sunu énergie sunu itte dañ koo bëgg a bokk ak sénégalais yi yéene moo ñu mës a teg fépp fu ñu mës a egg fépp fu ñu mën a nekk fii ñu nekk tamit tey jii yéene ju mat sëkk lañ ci ànd ak itte ju mat sëkk nag lañ ci ànd fooye ko caaxaane ko dañ ciy fas yéene liggéeyal sunu borom liggéeyal ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam liggéeyal ci Cheikh Ahmadou Bamba liggéeyal ci magu réew mi yëpp muy pàkk bu doy waar ku ne xam galgal yi ci nekk ak gàllankoor yeeg galgal yeeg kalante yi ndax pare nga pour affronter loolu sant sunu borom bu baax a baax a baax ndax ceux qui vivent sont ceux qui luttent lépp xeex la àdduna lépp euh, taxawaay la àdduna lépp itte la ku nekk nag da ngay nekk ci li nga war a nekk ku mucc suba ba ngoon jot sunu borom moom moo la musal waaye yéene ak yitte ju mag ak euh, yéene nit ñi jàmm ak yéene sénégalais yi jàmm suñu borom moo ñu wërsëgal ñu bëgg senegal bëgg sénégalais loolu wërsëg bu ñu suñu borom defal la ñu ko ci sant bu baax di ko ci am daal wa bada mm, mm, woy aliyaw ilay jumujul wa badalil wujudi minka karimun moom yonent bi min karimin abawooy kuramaaw ay nasabul nasabul hula bil hulaaw xaladan jaw maawoy jaw saaw bilay jëm yow yaay muhammadu rasul wa mooy yan nay ay waay muhammadu rasulullah ku faraj moom doona yasar wujudi kun li bijudi wajal wujudi fawqala daay xabli wi daada borom jumaa ji nee na xuduli muraad يا من فادا بلا كراي قبل البروراي خن خرور أبدا سرورا لي كل راي بدن wara ba nga ko tiimee ci raw du ba loo yëg su ku ne xam seen diggante ak Seydina Mohamed ba nga ko tiimee di ko bàkk loo yëg ah man foofu mu nekk damay jànnaxe man kay li may may ñaan kay mooy bokkaat ci at gi rek bu bee rek ma dem ndal la bëgg sa diggante yonente bi mënu ma ko expliquer loolu benn affaire la